السلام عليكم ورحمة الله مكي نيو لي نيو دينا زيار نان بالحق نان برام سبحانه وتعالى بولين جيجل حديث تاي بدفا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله صحيح البخاري ينون تبي صلى الله عليه وسلم دفا حديث بنه كبكو باي وقت تاكسان جلي وكو بمو بيس لب defoon ci lu baax loolu màbb na maanaam day yàqu xadis bi mu ci saxiixul Buxaari defee waxtu takkusaan bari nañu wax ci borom xam-xam yi ne mooy waxtu yi nga xam ne mooy asalaatul wusta mooy ku ko julli ñaan ku julli ci waxtoom julli ko ci mbooloo yàlla jéggal mboolum say bakkaar nangul la say jaam yàlla tax na bu jotee <coughs> digganteem timis ku amul benn ngant julliwu ko ngant li mooy lan mooy nelaw te yëgul ni waxtu wi jot na wala mu feebar feebar bu ko tere julli wala mu nekk ci yoon tukki boo xam ni amul fu mu julli wala yu mel na yooyu wala mu toog fàtte ko fekkee ne yooyu moo ko arrivé bu waxtu wa passé waxuñu ko waaye ki amul ngant toog di waxtaan wala mu toog ci euh, ci télévision wala ci ordinateur wala ci grand place wala ci yoo xamante ni coobare boppam daal moo ko fa bàyyi ba waxtu wa weesu te julliwu ko waxtu woo weesu mooy bu dem ba timis jot te julliwu ko kooku yoon sallallahu alayhi wasallam nee lépp lu mu defoon ci lu baax waxuñ julli rek de lépp mu defoon ci lu baax loolu mag màbb na ci heure boobu la màbb maanaam lépp day yàqu nañ ci yàlla musal qul hada wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa alaykum wa wa barakatuh